Allez, 14 heures passées de quelques bonnes 5 minutes et la première émission de variété musicale panafricaine, comme il est de coutume sur la 2STV. C'est la deuxième incursion, amis Merci beaucoup et félicitations Advisor qui était passé euh, lors du précédent numéro et qui a pu faire un sold out au 6 Encore courage à toi et félicitations Advisor di ko kontaane bu baax a baax comme ni ñu leen n'est-ce pas dinañ yokk li nga xamante ne moom mais particulièrement ñi nga xamante ne ñu ngi Sénégal en Gambie en Guinée Conakry Guinée Bissau Mali les pays limitrophes du Sénégal sur ce incha allah nous serons en Guinée Conakry ce 25

ak aussi ci un événement avec la 2STV di ci nuyu waa Money Empire bu baax a baax a baax di nuyu waa Gambia yëpp sama xarit sama doomu ndey sama number one sponsor Youssou Diba Boss Luxury maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax STS Pictures Dollar n'est-ce pas Amadou Viper waa Gambia yëpp ñu ngi leen di nuyu artistes yëpp promoteur yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax aussi wax sa xalaat musique si yaa ngi ñëw ak Sista Ndiaye waaj leen loolu bu baax a baax a baax foofule ca Gambia alors on a une artiste comme je le disais tantôt une artiste une valeur sûre de notre musique urbaine elle a une voix sensuelle surtout quand elle chante l'amour elle s'appelle Dior Mbaye fi mu ne euh, Dior dama lay bàyyi d'abord nga nuyonte ak sénégalais yi lay seetaan waaw salaamaaleykum Habib maa ngi lay nuyu yow euh, ci di la remercier ci invitation bi d'abord. waaw di nuyu sénégalais yëpp nag. Euh, mm-hmm. di nuyu waa 2STV. Mm-hmm. kontaan alors li may njëkkee wax dañuy commencer ak sa carrière actrice d'abord mm-hmm. n'est-ce pas. parce euh, ci ay ay ay film wala boog ay série nest naka la loolu demee woon sa carrière boobu. waaw. comme ni ma ko waxee rek man moom ba ma juddoo rek dama bëgg a Mm-hmm. tout ce qui est art xam nga couture ay ñaw ay tout tout daal. Mm-hmm. léegi nag dama nekkoon ak sama ay copines euh, ne Fall ma di ko nuyu au passage. Mm-hmm. tout le temps dañ daan nekk ensemble di jouer ay théâtre di fo. c' est là que un réalisateur m'a vu. et il a eu envie de faire quelque chose avec moi. xam nga ma koy nuyu au passage moom tamit Ibrahima Niang. Ibrahima Niang alors ngeen dem ci yan série nga jot a def ak moom. waaw waaw. Euh, Euh, def ko jot nañ def euh, benn série bu tudd déception boobu neexoon na torop torop torop torop torop mhm. par la suite euh, man j'ai eu à faire d'autres trucs mhm. mais mi ngi ci internet bi et tout ça yoo xam tam parewul d'une carrière d'actrice à une chanteuse mhm. naka nga jàllee ci étape boobu waaw en am na benn série boo xamante ne def nañ ko ma nekkoon ci biir nag di way ak sama benn sœur mbaay <laughs> Mbaye madame Mm-hmm. kayit am ma koy nuyu. Mm-hmm. Euh, moom mm-hmm. moom ñoo ci doon wayantu. après ci la ma Sénégalais yi dégg ni ma mais ki dafa mën a way kii way ci taman boobu xaw ma ne woon sax nag loolu dama doon foo rek. waaw léegi nag ñu ne nag dañu bëgg ma way. après nag ci laa ni comme bëgg nañ ma way nag. léegi du ma ko def médiocre ma xaar ma dem jàngi ko. waaw nga dem jàngi ko da nga dem Douta Seck. waaw pour euh, jàng musique. <laughs> waaw def fa ñaata at. def naa fa trois ans. c'est très important quand même euh, dama koy faral di fàttali artistes yu bëri. Mhm. même boo demee euh, ba gis ne talent mu ngi si yow. ci woy mhm. mais aussi gis nga euh, boo xoolee musique bokk na ci ci aar yi gën a parfait nest pa mhm. lu ñu jàng la n'est-ce nga xam ko comme yow ni nga def soo sentir ni talent mu ngi si yow nga dem jàng n'est-ce pas ñu yokk la beneen xam-xam nga dolli ko si yow loolu du def dara lu dul jëmale la kanam alors je rappelle que am na titre boo xam ne defoon nga ko ci benn série série boobu ci série boobu non en tant je ne suis pas waaw joué en tant que actrice. Mhm. waaw sinon j'ai fait la bande originale. waaye la bande originale. waaw alors moom moo nekkoon titre dem naa. dem naa un café avec. et c'est ce qui a marqué un tournant décisif dans ta carrière dafa tax sénégalais yu bëri xam la comment ça s'est passé. waaw euh, série bi bi ma koy def maa ngi ko def ak benn label bu tudd Gelongel. en même temps ñoom ñoo nekk réalisateur un café avec ñoom ñoo ko réalisé. Mhm. donc euh, ñoom ñoo produire woon euh, dem na son dem na mhm. ñoom ñoo jël son bi tamit gis ni war na mën a nekk bande originale bi et puis mhm. na leen ñu dugal ko ci biir film bi super am na beneen titre boo def ak waa gelongal muy Baara Aaw Baara Aaw loolu laa bëgg ñu dem seetaan yi et on revient sur ce plateau pour le commenter très très belle Baara Aaw ça s'appelle sorti sous le label gelongal moom nga rejoindre label boobu mhm. muy gelongal titre bii nga génnee ko ci actuellement a liggéey yow gelongal ah Guelonguel yàgg naa fa. 2012 <laughs> ba 2019. ça fait huit ah, ans ah <laughs> 2012 donc yàggul bi nga jógee Guelonguel. Euh, waa jógee. <laughs> oui non voilà, mais soit mais... non mais non non non nekkuloo Guelonguel. maa ngi liggéey daal. yaa ngi maa ngi liggéey di avancé. en indé koo xamante ne en indé yow fu mu nekk non non non. Hmm? cest fu mu nekk en label bu pare pour ñëw si la mën na ñëw. bien sûr. bien sûr parce que gelongal signé wu ma fa contrat waaw que ça soit clair euh, dama doon liggéey ak ñoom euh, c'était voilà entre c'était amical c'était un contrat verbal waaw contrat verbal moral fraternel mm-hmm. tout ce que tu dis c'est ce que tu veux voilà mais euh, su ñëw jotuma fa woon signé contrat mhm. voilà ba léegi maa ngi liggéey euh, aussi euh, donc képp koo xamante ni pare na pour liggéey man aussi je suis partante alors tey ñu nekk ci milieu boo xam ne te yow gis nga musique sénégalaise bi ni mu mel mhm. ça s'étale sur la toile mhm. tey ñu bëri ñu ngi génnee ay son am na ñoo xam ne nekkuñu ci ay label am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay label alors tu as marqué beaucoup de vues si sa dernière euh, vidéo bi nga xamante ne moom mooy Maalafal dinañ am occasion seetaan ko. Mm-hmm. mais lan mooy arme yi nga xamante ne moom nga àndaale. <laughs> pour nga mën a percer en slow artistes yu bari yooyu. surtout yu jigéen ñi. waaw yu jigéen ñi waaw mm. parce que c'est vrai que sénégalais fi mu ne nii Sénégal bari na talent trop. Mm-hmm. voilà mm-hmm. Euh, et la nouvelle vague aussi. Euh, waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi def lu nice. donc mais comme ni ma la ko waxee rek boo defee lu nice ci biir nit ñi dañ koy gis muy aussi lu mu bari bari bari nit ñi euh. boo defee lu nice dañ koy consommer tout à fait alors euh, fan la la inspiration boobu jógee Malafal parce que je vois qu'il y a une variété uh-huh. afropop et mbalax en même temps qu'on dans ce dans voilà parce que man je suis j'ai été bien éduquée quand même uh-huh. euh, mmh. par des frères euh, euh uh-huh. ma leen di nuyu au passage waaw di profiter ci occasion bi di jaale papis sama manager bi fi joge voilà ñoom ñoom ñoom gën nañu ma yar ci ci variété parce que ñoom xam nga dañu xaw a polyvalent. tout à fait voilà du coup euh, man aussi jàngi naa ko. Mhm. pendant trois ans dem naa Duda sekk def mhm. naa solfège def na je de la guitare. Mhm. voilà et puis euh, voilà loolu foofu la variété bi jógee. Dior dafay jouer guitare dafa bëgg ay ñaw dafay dafay def ay film c'est la en quelque sorte ouais, voilà man lépp laay def théâtre damay taasu damay way damay def lépp. yëkkatil ñu dara ñu. ah ñu dara ñu ko. damay dem. damay dem te kenn duma garab gu ndaw boo ko mënta roose bàyyi ko mu dund bul jéema buddi bul buddi lu xamoo fu rek tax dandal sore de ko xool de loin mooy sa njëkk laay su maggee keral ba mu keral keneen du am na njariñ te xanaa xamoo ni am na ñoo xam ni kenn du leen laal. très bien Téléston Dior Mbaye man gis nga artistes fi ñëw. maanaam leen wëyal nga noo ay non oh, hier j'ai dormi trop tard ay bàyyi <laughs> artiste da ngay wëy so prêt tous les jours n'est-ce pas nii ngay def euh, ni euh, Dior Mbaye alors euh, balaa ñuy dem ci vidéo boobu nga xamante ne moom mooy Mala Fall on a la vidéo du jour je vous rappelle Stanley Ino génne woon cette vidéo My Way c'était en featuring avec Tizi Panchak et Loco alors mu defaat remix bi qui est sorti fraîchement en featuring avec l'artiste Diamond Platnumz qui est très demandé actuellement et qui sera en concert en Conakry bien sûr ce sera pour ce jël beneen artiste aussi bu jógee Côte d'Ivoire muy ne mu boole leen pour amal loolu nga xamante ne moom i remix bi alors Stan Lino je vous rappelle qu'il est rappeur animateur radio et télé et aussi il est producteur camerounais alors on va regarder cette belle vidéo découvrir cette belle photographie n'est-ce pas alors ça a été réalisé par Spectre let's go let's get it

aussi donc un événement qui se profile à l'horizon ce sera pour ce 11 avril avec VG Dream un événement avec la stv ici à Dakar ñu ñëwaat ci plateau bi ngir waxtaanaat ak kii nga xamante ne moom mooy Dior Mbaye génnee tube ne moom mooy cartonné actuellement sur TikTok quand tu vas sur TikTok quand tu vas sur euh, Vid euh, euh mais quand tu vas partout sur toute la plateforme Instagram Twitter Facebook on est en train de tweeter euh, loolu moo résultat wu en moins de trois semaines mu plus de vues Ouais. Et dans deux semaines, ça va faire le plus, euh, ouais. plus d'un million. Oui, oui, machallah. Nous, nous, nous, vraiment, tiens à vous remercier parce que tamit nit génn na fi kenn xoolu ko donc le fait que ñu jël ma euh, ubbilaat ma seen ay loxo. wan ma ni ma am nga place ci musique bi. waaye c'est la manière t'as chanté l'amour moi j'ai eu même des mecs. Euh, <laughs> man am na ay góor ay ñu nekk ñu koy challenge ak ay maire ak ay pa donc j'ai des vidéos yoo xamante ni si à mourir de rire. da ngay mhm. kontaan sax. Mhm. tubaarkalla macha allah mais j'adore tout à fait alors euh, commercialement qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'il y a des concerts est-ce qu'il y a des tournées waaye euh, itam fan ngay fan la ñuy commencé goo ko distribuer sur la toile sur le digital enfin single bi euh, j'avais envie d'offrir ça aux fans euh, mais tu peux offrir en même temps tu vends <laughs> ma gis. ça fait mhm. quatre ans gisuñu ma sur mhm. scène musicale bi tout. Mhm. donc j'avais envie de leur faire plaisir et puis je pense que jàpp na parce que ñoom ñëpp nangu nañ ko c'est une très euh, belle mais c'est prévu quand c'est prévu yeneen ñu garaaw ñi ngi ñëw. parce que mhm. ñun tooguñu instant yi ñi ngi liggéey ci di job bu métti nekk. Mhm. waaw ñi ngi ñi ngi ñëw euh, voilà ak yeneen yu gën a garaaw. tout à fait daañu waxtaan ci marché musical sénégalais bi. <laughs> waaye dañuy dem seetaani vidéo bi nga xamante ne moom mooy Mala Fall et on revient sur ce plateau. Allez, un très beau titre accompagné d'une très très belle vidéo on voit Dior se défouler dans la vidéo n'est-ce pas no stress avec euh, cet artiste encore starring Malcolm aussi maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu nekk humoriste muy def lu am solo n'est-ce pas alors euh, li ma leen doon wax mooy possibilité euh, créer li nga xamante ne moom mooy Afrowave alors si c'est nga def afropop du ma ne afrobeat <clears throat> parce que boo nee afrobeat Ghana ñoom ñoo ko moom euh, nit ñi nag ñu bëri dañuy foog ne ni afrobeat c'est du Nigeria c'est pas du Nigeria le Nigeria il est Niger n'est-ce pas Niger music mhm. afrobeat ça vient du Ghana encore une fois que ce soit ah ouais? DJ animateur foog nga xam ni afrobeat ghanéens yi ñoom ñoo ko moom nigériens yi ñoom ñoo ñëw suivre ghanéens yi ci li nga xamante ne ñoom loolu la ñuy def n'est-ce pas alors ñu créé benn afrowave mooy comme li nga def afropop mhm. ci afropop bi nga jàll ci li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy mbalax donc ce son bi c'est un exemple type qui confirme que aujourd'hui même sooy def du mbalax tu peux aussi euh, laal ci yeneen yeneen variété musicale waay waay waay en fait way euh, ak kii boobu la ñu demee sax nag mm-hmm. franchement mm-hmm. parce que c'est avec des frères euh, waa Rock Team Music mm-hmm. Chérifou Diop Sabran donc c'est seen studio laa defee lii ñoom ñoo style musical bi au début j'étais un peu sceptique je a sentais Kimani Victoria Kimani wala bi ma dégloo son bi ñooñu seen seen flow yi laa doon sentir bien sûr parce que ci commentaire yi euh, au niveau sama YouTube mhm. maa ngi gis mhm. waaw Tiwa Tiwa Savage ñëw bu baax a baax mm, dañ naan ma moom da nga koy xaw a nduru ba pare voix aussi da nga da koy sentir donc loolu sant la parce que mm. moom c'est une figure emblématique comme on dit mais ah, star mondiale voilà donc sant yàlla mhm. mais euh, j'ai voulu aussi euh, créer l'enracinement et puis l'ouverture maanaam wane euh, dara ji mhm. sénégalais xam nga ah. yëpp ba pare après nag duggaat nag ci comme ni nga ko waxee ci pop mhm. afropop bi afropop bi tout à fait alors tey le marché sénégalais naka nga ko gisee Diome Mbaye en tant qu'artiste comment tu vois le marché sénégalais le marché musical waaw euh, le mars bon enfin je pense que xaw na wéet quand même. xaw na waaye <laughs> xaw na waaw y a des talents mais y en a pas. en quelque sorte je m'excuse du terme enfin hmm. je vais m'expliquer je veux dire que am na ñoo xamante ne ñi ngi def lu nice ñi ngi leen di déglu mais am na ñoo xamante ne dañu topp folklore bi et puis c'est dommage pour nous hmm. parce que loolu du yóbbu suñu musique ma hmm. je pense que nit ki soo demee bay génne dara def ci travail def ci gëstu pour que pour yeneen pays yi ñuy seetaan xam nga pour euh, ñu ñu crédibiliser un peu suñu musique voilà moo tax euh, bëgg naa maa ngi woote ñuy gëstuwaat di defaraat mm. texte yi di woddaat paroles yi ba pare tamit di di liggéey ci son bi avant ñu ko jox public bi c'est important di liggéey ci musique bi n'est-ce pas servir de la qualité aux consommateurs c'est très important consommateurs yi aussi di leen wax ñu yokk li nga xamante ne moom mooy suivre artistes sénégalais yi si jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy amal n'est-ce pas c'est très important de suivre les artistes mm. pas wéeru fi wala wéeru fële parce que boo ko defee globalement ci la suñu musique di dem kanam n'est-ce pas euh, boo ko defee globalement ci la suñu musique di dem kanam da ngay kii di def j'ai toujours dit depuis que émission elle commencé qu'on essaye euh, li nga xamante ne moom la Dior doon wax léegi ñuy ñuy ñuy jéem a euh, yóbbu suñu musique feneen mhm. n'est-ce pas waaye itam ñun fii euh, ñuy jéem a collaborer di def de grosses collaborations par exemple je disais au début que tey si le rap il rejoint le mbala c'est c'est un truc par exemple Dip ak Bastion ils ont fait un son mais ça c'est un ouais, gros hit j'adore ouais, ça c'est un gros hit tu ouais. peux pas aujourd'hui dire que man damay def rap non les mbalax man et cetera non c'est pas la musique la musique c'est pas une religion mhm. di jaamu c'est une passion après on passe à autre chose c'est comme le rap le rap n'est pas une religion quand tu fais du rap mën nga jàll ci leneen mën nga faire def du afrobeat du mbalax tout ce que tu veux ouais. fais de la bonne musique et les gens vont écouter c'est tout c'est pas compliqué vous faites de la bonne musique les gens ils vont écouter loolu moom moo nekk seen liggéey les artistes yéen yéen a tànn nekk artiste allez au studio faites-nous des hits et nous on va danser là-dessus on va acheter ñuy jënd dañuy jënd n'est-ce pas mhm. donc c'est important euh, spectacle aussi noo gisee Sénégal xaw na pauvre ci spectacle euh, non voilà on n'a pas assez de promoteurs voilà on n'a pas assez de promoteurs mhm. et puis promoteurs yi fi am yëpp dañuy exporter ay artistes donc euh, dañuy du ñu jéem a euh, jëmmal suñu artistes yi nekk mhm. fi c'est dommage voilà mais je pense que artistes ci boppam mën nañu xeex ba yóbbu suñu musique parce que par exemple ma jël exemple ci sama sister Queen Biz def na kii Nice ak. Euh, Chidima ak ak Chidima boobu man maa ko coordonné. man maa ko collaboré man ak sama xarit. ci K8 yi kooku producteur la Nigéria ku bëgg mel noonu ñëwal ma. macha allah maa ngi benn ngi nii donc voilà. pour loolu day day tax affaire yi day gën a nice. Mhm. waaw ñu gën a yokk ba pare producteurs yi aussi balaa ñoo tàntal nit di ko jëli ci àll ba na nañu mhm. langal ñi fi ne. avant ñu yaatal voilà ñu yaatal ñi fi nekk te sénégalais yi aussi ñuy duyoo. avant mhm. dañu tàmm dama am benn loo xamante ni daf daf ma koy daf damay revenir. sénégalais yi xamuñu duyoo duyal la ñu xam. maanaam kii rey na ko ci son bi. def na kii ba mu yuuxoo lii na ci fan sami donc du mhm. coup dañuy ragal duo mhm. mais enfin loolu moom mooy yokk musique tout à fait waaw euh, et puis war nañ ci gën a liggéey je pense tout mhm. ñu yokk aussi promoteurs yi ñi nga xamante ne aussi souvent damay wax ak ñoom mooy compagnie mobile yi ñu yokk aussi liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy defal musique li ngeen di defal musique mooy lan soit ngeen deg jël artistes yi def leen endorsement deal di leen jox xaalis pour ñuy liggéey ak yéen loolu c'est un deuxièmement li nga xamante ne moom mooy internet ngeen wàññil ko nit ñi bu baax a baax a baax alhamdulilah aujourd'hui accès mm-hmm. c'est pourquoi une vidéo en deux semaines nga gis moo am un million de vues deux millions de vues alhamdulilah yàlla na gën a yokk n'est-ce pas suñu artistes une cinquantaine de millions de vues à cent de vues euh, seen intérêt lay doon toujours n'est-ce pas loolu c'est très important alors je rappelle aussi que tu as remporté le prix euh, Ouais. En face à, donc face à Yemi Alade du Nigeria, de Nicole Amango, c'est ça Amango du, Gabon, Nila de Benin et euh, Claire Bailly de la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Peux-tu revenir sur ce, parcours balaa ñuy tëjee incha allah. allah mi ngi mel nii rek comme li ma wax boo defee lu nice après yow nit ñi ñoo lay soxla man dama toog rek ñu contacter ma ni ma tu es ci Kama Awards waaw. Mm-hmm. queen africaine euh, musique boo xamante ni àdduna yëpp mm-hmm. ñi ngi koy waaw suñu ay ñoom Fanta Kouaté ay maire yoo xamante ni ñoo ngi ñi ngi mm-hmm. ay kii lañ ndaanaan ñoom ñoo ko présider woon waa ma tase fa tam ak ay ndaanaan ñi nga xamante ni kenn dootu leen présenté ci musique mondial voilà donc dem nag ñu nominé ma ma jël prix ma ci sant yàlla macha allah macha allah loolu am na solo alors lan mooy li nga xamante ne moom moo topp ci Maalafal waaw Maalafal nag bu ko folli de mukk <laughs> du am voilà euh, maa la fal li ci li ci topp moom mooy affaire yu garaaw rek mm. franchement parce que comme ni ma ko waxee c'est mm. une promesse ni nga ubbee année bi neex na de <laughs> waaw waxoon naa leen ko c'est waaw j'avais promis ça parce que mm. ci début décembre bi nee naa leen année bu bees bi dina nice trop waaw te yeneen a ngi ñëw waaw yu gën a nice nañ ko xaar ayca looy wax sénégalais yi le dernier mot voilà may. waaw le dernier moo maa ngiy gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mhm. di féliciter waat euh, vraiment ñi nga xamante ni ñi ngi may dooleel. Mhm. voilà. di gërëm sama maman bi nga xamante ni moom mi ngi may jàppale tout le temps muy euh, Fatou Mbacké Jong mhm. yaayu jaara seen petit gàlle nga xamante ni moom mooy sama yaay mhm. di gërëm ñëpp di gërëm tamit euh, Ibrahima Wele euh, sama tailleur bi nga xamante ni moom ay Made in Africa yu naay sek lay nag la <laughs> waaw di remercier nag ñëpp waaw di kontaan trop ci invitation bi encore une fois yéen moom plateau bi la alors euh, Tigna Mouhamed Ba Roqeya n'est-ce pas ki nga xamante ne moom mooy Bira Petit Dia Roqeya moo doon réalisé waaye tam faatu Moustapha Son euh, Emma euh, Mbi mooy capitaine bi ñoom ñoo doon coordonné émission bi di kontaan si ñoom bu baax a baax équipe de choc bi nga xamante ne dañuy bàyyi añ bi ñëw toogal fi Made in Africa añ mbëggee livre ñu añ di kontaan bu baax a baax a baax merci d'avoir été à la suite des programmes de la 2